mbokk internet yu Baol TV ak Lamb Diaspora TV Naar Fall mu ngi leen di nuyu di amaan mbégte ak contentement di jàkkaarwaat ak yéen ñu nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di nuyu kilifa diine ak kilifa aada yi di ñaanal ñi faatu yàlla yërëm leen xaare leen aljana ñi tawat yàlla na yàlla fëgg seen bopp ñi nga xamante ni ñoom la caabi féeti ginnaaw yàlla na leen fa suñu borom génnee bañ dellusiwaat suñu biir mbokk koy defal comme ni leen ko daan defalee neenal leen fépp champion ne fépp nitu làmb ne dinañ fa dugg génnee ko waxtaan ak moom waaye mbokk yi tey dañoo dugg ci gox boo xam ni kenn du ko tudd te tuddoo làmb mooy fan Pikine kallan seet si xale bi ñu naan Pikine Dakar ku ko xam xam ko ak Ama Balde ku ko xam xam ko ak mbëri pikin yi mbokk yi ku ne xam na ni Gris Bordeaux ak Ama Balde gars yi ñu ngi ko doon waajal mu waroon am le 9 juillet bii di ñëw incha allah gis ngeen nam fa demee ñu ne Gris Bordeaux dafa blessé ba ñu rapporté làmb ji ñu fas yéene cee waxtaan ak euh, pikin dakaar ak euh, coow yi nga xamante ni mbokk yi am na ci làmb duñ def lu dul jox pikin mu nuyoo ñu dugg moom ci waxtaan bi Pikine nuyu nan la siyaar ñu ngi lay ziar naar maa lay ziar di la jox sa wàccuwaay di nuy monde entier du nuy waa Sénégal dina lii fi jot am muy Sonko wax Macky yàlla bu mu fi amati ndax ñun xamuñu lii ñu suñu dëkk jàmm lañ fi xam fair play waaw fii ku mu neex faral ko la neex mais nañ ko teg lépp ci cadre politique mu bañ a salte ñu si génn àdduna ñu ngi leen di ñaanal fu ñu tëdd suuf sedd seen kaw yàlla yóbbu leen àjjana yu gën a di masu seen famille di leen jaale di leen ne métti na trop mais nañ muñ waaw li yëpp ñaar nit a ko waral muy Sonko wax Macky Sall. Mm-hmm. am na solo yaakaar naa ne message boobu am na solo gars yi nañ dellusiwaat xel yi te xam ne Sénégal suñu Sénégal la ñoo ko moom buñ ko yàqee suñu bopp lañ yàqal. Pikine Dakar ngeen doon waaj le 9 juillet. yàlla ñëw ak dogalam. waaw kon ni nga ko waxee rek ñu doon waaj le 9 juillet. nekk si préparation yi di dem entrement lu ñu war a def si laamu ji yëpp ñu koy def laamu ji desul lu un mois ñu dégg ñu kiri dugal na certificat médical bu nekkee dafa gaañ ñu ngi koy ñaanal blessé bi yàlla na tenex càmm ndax moom lu ko daloon dal nañu ñu xam nañ lu si blessé mais bu fekkee tamit blessé wul yàlla nañu yàlla attax moom bu fekkee blessé wul yàlla nañu borom bi attax moom mais bu fekkee daa blessé ñu ngi koy ñaanal mu am tan am wér ba ñëw caatu Fallaye bi. mais ba ngeen bañ leen annoncé ni euh, Gris Bordeaux dafa blessé Pikine loolu lan la def ci yow ba ngeen nekkee ci wàccaay fii laa toog maax maalaw Seras fii ñu woo ma ne ma laa ma ji dégg nañ Gris Bordeaux ngi noonu di dugal certificat médical ba ma ko waxee si sens rek sama yaram dafa daw rocceeku mu mel ni nekkatuma fi ndax affaire bi dafa ma touché calmement boo xam ne foogee ma ko woon ndax am lu mu yëpp. njëkk na fi préparé Modou Lo Modou Lo dugal certificat médical ñu perte te ñu ngi doon préparé suñ combat di dem si sëriñ yi ba ñu woo Ama mi ngi toog si dernier sëriñam ba mu koy jox xaalis bi dañ koy woo téléphone mook sëriñ bi ñoo doon xëccoo xaalis bi ñu kay ne combat bi yàqu na barki sëñ Fallou muy lu metti kuy dem bay xëccoo sa sëriñ xaalis nga koy ne kon kañ séddoo ko kañ koy xaaj nga jël gan wàll ma jël gan kon koo gore na. kon ba ngay annoncé naan ko combat yàqu na dafa demoon. ci sëriñ toog. di génne xaalis di ko jox barki sëñ Fallou moo sëriñ bi kii di ne jàppal kii di ne bàyyil mujj ama da nga ne kon kañ koy séddoo ndax teg jeexal lañ waxoon dañoo tegoon jeexal tàq barki sëñ Fallou. ngeen doon waajal Gris Bordeaux na ngeen ko doon waajalee jafe entraînement yi yaakaar naan pare woon ngeen ngeen nekkoon tam ci wàllu mystique comme ni nga ko waxee ba leen koy annoncé ci sëriñ la leen fekkoon combat bi ñoroon na leen lool. ñor nañu bu dañoo toog cinq ans bëriwuñu ñu war a ñëw jàkkaarloo Gris Bordeaux war a wan askan bi kuy Ama Baldé Ama ñu wax yeneen facette mhm. lii dalaat si kawam ñu koy masu di ko jàmbaar la champion la fu mu tee foofu la Ama day xëy daw jàmbaar ba xëy dee barki sëñ Fallou Ama day xëy jàmbaar ba xëy dee day daw jàmbaar Ama champion la mhm. man maa ngi koy masu Ama ba affaire bi amee sax bëgguma gis parce que mënu ko xool quoi. dama koy ñeewantal dama koy ñeewantal billaay walaay talaay naar ku gore nga ku baax. mais léegi say biir kàddu ba ngay ñaanal giir nga ne su fekkee blessé wul yàlla yàlla àtteeg moom dafa mel ni da ngeen jàpp ni giir Bordeaux blessé wul day tappale lii daam leneen lu ko lal suuf naar ñu duñu ay ngaaga ñun ay doomu Pikine lañ dëkk ci biir banlieue bi ñoom luñ nas ñu rocc daam ñu nekk seen ginnaaw xoolal ñu demoon wuy ji ñëpp. tey koo si dékk micro mu ngi ne damay bàyyi làmb wala ñuy ne ay médical ndax leen seen poste dis na mais xalaatuñu keneen ku nekk seen ginnaaw koo xam ni toog na cinq ans six ans bëriwul ñu bëgg a fàqatal bëgg gor ay tànkam te kooku naa xamal leen a yàgg-yàgg day metti trop mais ñu làmb ñoo koy téye suñu loxo barki sëñ Fallou lii nii dama bëgg après bu amee ngeen génneewaat ko te buñ ko téyee dina naqari pour ñu génnewaat ko suñ loxo ndax ñu dañoo xam ku ñu doon xam ku ñu mat xam ku ñu àndal. lii ngeen lii ngeen gis ni Ama sax bu waajee komba combat bi yàqu complot ngeen ko jàppee. waaw complot la ndaxte Ama kii la àndal ñoom àndal lu ñu kii ñoom gouvernement la ñu àndal te Ama askan bi peuple bi la àndal ndaxte Ama lu mu doon peuple bi ñoo ko def Ama lu mu doon askan bi ñoo ko def kon Ama mënu def leen lu sargal peuple bi sargal ñu jeunesse bi ama bu trahiré rek kon jeunesse bi lu ñu ko ji du dëgg. daa am ñu trahir. ah daa am ñu trahir. waa gis nañ ko fi am na yoo xam sax man naar mooy loolu bari sëñ Fallou. mais ñu gis temps yi combat yi ni muy yàqoo. surtout mm-hmm. rawatina combat VIP yi. waaw lépp am na yoo xam tamit làmb mooy yàqu. gars yi ñu si war a wax dañoo war a jóg wax dox si. CNG indi ay médecins yu mat sëkk ku ne dafa blessé bu gaañoo ñu ñëw dugal la si scanner yi ñu scanner la xool lan moo la dal xool sa yaram fu si am fi si wala fu foxoj loolu mooy yoon mais indi sa certificat médical nii rek déposé ko nii rek ñu awiyal la ko rek dafa yomb lii day yàq làmb li doxalul yaam bu ñu yaakaar ni booy bi la ñuy suuxal suuxaluñu booy bi de làmb la ñuy suuxal. làmb lañu suuxal làmb la ñuy suuxal. mais coow li bari. gars yi dem pale ñëw. coow li bari Ama demul woon mais Pikine am nañu demoon mais Ama ba waa pikin yooyu ba ñuy dem Ama dafa amul woon information wala la la Ama la moo tax demul. yaa ngi gis vidéo bu doon circuler si site bi muy Ama guy gi guy gi looloo ko fii indi woon di ko nuy au passage mu doon ku baax doon ku tey ñëw seet si Ama boo gisee vidéo yooyu mi ngi daw si TikTok bees site internet yi loolu la ko doon confirmer si loolu la ko doon wax si. dafa ñëwoon pour yëgal ni Amani président lundi heure temps nañ daje ñu dem pare loolu moo ko fa indi woon jour boobu. mais dama gis ñu bëri dañ na guy gi moo doon woote. mais mu def déplacement ñëw ci Ama. Mhm. pour yëgal si ko. waaw ndaxte ba mu ñëwee si Ama njëriñ la fa jëlee ba mu ñëwee si Ama dégg mu baax lu ma la wax njëriñ la fa jëlee. njëriñ lu mel noonu. ndaxte guy gi moo woo téléphone am mbër bu nekk mu woo ne la président moo woote. daal otom ñëw ba buntu gaal ama fekk ñu fa wax a ama ama di mu nekk fii baax na kon guy gi OFM xam nga bàyyi fa la quoi nit ku tey la ba dem jotee tamit moom gisuñu ko fa waaw lan ma waral gisuñu ko fa kilifa gi la ñëw seet si ñàkk demu guy gi kilifa gi la ñëw seet si dama dégg léegi sa biir kàddu nga ne njëriñ la fa jëlee njëriñ la fa jëlee mooy gis nga ko fa ama ah, bokk na ci ñi ko conseillé ne bu mu dem. ah xaw ma daal mais xaw ma ñoom ñaar lu ñu wax. Mhm. mais moom est-ce gis nga ko fa. gisuma ko fa. waaw ah, kon mooy loolu. xaayaan ku dégg séeréer. ah ma ne xaayaan ku dégg séeréer. waaw xaayaan dégg séeréer. macha allah no yaakaar naa ni waxtaan bi am na solo mais mais mais mais mu mel dafa am lu mu def tam Pikine mbëri dëkk pikin demoon mhm. amut lu mu def ci ci ci yéen nga xamante ni yéen a dëkk pikin seen digganteeg mbëri yooyu. waaw dëgg la am na mbër yi demoon Pikine ku si mel ni Eumeu ñooñu gis nañ leen fa mais yaakaar naa bu ñu demoon pale dañu war a xool lan mooy avantage jeunes yi ak Sénégal nan lay doxee jamono ji ñu leeral ko président ndax ñoom ñoo leen gën a xam essence Sénégal métti na trop dangay ngay yeew war a jox sa kër nga yeew gis sa yaay mu xool la nga xool ko nga sël mu romb ko loolu dafa ñaaw ñu muñ soyoon kenn ku nekk saa yoo xëyee jox sa yaay lu mu mën a dépassoo bari sëñ Fallou mais man mi ngay introsé nii fukki dërëm yeewaale wu ma ko tey. mais di ko sante yàlla. macha allah nit ki waroo ñànk rek. ñànki ñun xamuñu lool ñun ay gor lañ. Mhm. day xëy jàmbaar ba xëy dee bari sëñ Fallou kenn ku nekk bu sañoon boo yeewoo jox sa yaay lu mat sëkk nga dem mhm. marché. yàlla baax yàlla dina ñëw incha allah. Mhm. mais mais mais ñu gis temps yi Boy Niang moom génn annoncé ni nëbbatuwuma président Macky Sall laa àndal. loolu noonu amul lu muy def ci làmb wala lu muy def ci sport Pikine waaw ragale féete day xañ a wërsëg kont moom wax na fi mu féete mhm. dañ ko koy nongul ñu tamit fu ñu féete dañu ko war a nongul mais làmb bu xasee ba politique du si dugg mu ngi yàq làmb mu ngi suuxal làmb ndax ñu ànduloo gouvernement ñooñ duñ bëre mhm. dégg wax laa lay wax nii de ñu àndul ak ñu àndul ak gouvernement ñooñ duñ loolu nga gis loolu laa gis làmb waruñu ko dugal si politique làmb ak politique àndul. àndul nata jeunesse bi ñu dañ leen topp ngir làmb topp ñu leen ngir suñu suñu dëkk Sénégal bi nu muy doxee wala nu dul doxee. bu ñu leen di topp làmb lañ leen toppee man Pikine su may topp kenn làmb laa koy toppee mais à cause de ay sànni carte kii laa war a sànni carte loolu man la. Mm-hmm. bokk nga yow su ma la déggee li nga xamante ni mooy bare ama ci ay combat di ko yàq bokk na ci lim àndul ak gouvernement waaw loolu laa gis. loolu nga man sama xel loolu laa gis mhm. ndax Ama dañoo mbëru askan bi la mbëru peuple bi la askan bi la àndal askan bee ko ñor ku mu doon bëreel kan la ban parti la ne. Gris Bordeaux. waaw. laaj naa la ko. waaw ah, pa président la àndal. mais est-ce que wuy jugul woon président noonu rek. mais Gris ba léegi deful annonce. ni après ñoom ñëpp dañoo defaat conférence presse wan ni fi nga féete. ragaluñ ko. mais ko presse nekk ñun duñ ko ragal. conférence de presse boobu gisaat nañ fa beneen mbëru Pikine. waaw Sokh. sook Sokh dañ koy nuyu à passage moom tamit ñi ngi koy gis mu ngi génn di wax mais na xam ni moom askan bi nu mu mel rek askan bi ñoo ko teg buñ buñ ñu mës a trahir fii ku trahir rek di nga ko gis barki sëñ Fallou. gars yi buñ ko naan sooku dem bu njëkk ba demoon na lekk na bii mu lekkut moo tax muy wax. dem bu njëkk ba demoon na nii. dem bu njëkk ba loolu nii la ñu leeree muy Boy Niang di Eumeu seen di Sokh ñoom ñoo demoon deuxième mu génn kaas deuxième mu génn kaas mais xëy na xanaa li ko wowul la loolu la ah, laa yaakaar de mais te lool waru tax mu mer moom naan na jeunesse bi xam nu mu mel jeunesse bee ka teg fii boo doxee bañ leen ne diwa ngee non santal jeunesse bi santal say supporters ñoo ñoo def li nga tax nga doon macha allah ama waa ëllëgu ama ñu dañuy ñaan yàlla xam nga mooy lu ma la wax nii rek yàgg yàgg làmb ji suñu loxo lay tegu kon Ousmane Sonko nu muy fasee ne toog si réew mi téye réew mi Ama Baldé noonu lay fasee ne toog si làmb ji téye ko nii. nekk le roi nekk le roi ba faw moom sël. moom sël. Pikine fu mu teg loolu. Pikine fu ma teg gëm ku ma àndal xam ku ma àndal xam mbër ban laa àndal damay ñaan yàlla ba ma boole Ama Baldé ku jaay ngorom. mais bëgg bëgg gi Pikine bëgg Ama lu mu wax ne Ama damay gis sax soxna si tegal ko lekk mu ne ko lu amul Ama bëggu ma lu amul Ama bëggu ma ba soxna si day mer mu ne ma man nag ma ne ko yow après nga ndeysaan après Ama yaa si tegu Ama la sa diggante sama diggante Ama loolu dafa yàgg Ama ba muy doon tout tànk fii la doon fooye fii doon café fii la doon bëree asem boppu coor mhm. Ama léppam sa tër bi defee barki sëñ Fallou macha damay toog du ma yaakaar sa am ama ne ma koŋ-koŋ ñëw yendu si. bërki la si mujj ay ñoom maalo seraas mu nekk lu rëy ci yow. mu nekk lu rëy man. ñu am fuñ ma teg man tamit ma teg leen fu sori fu kenn tegul kenn. man lu amul ama bugguma man ama mooy sama président. mooy sa président ama mooy sama loi. barki alxuraani karim. macha allah mais mais mais temps yi coow li bëri na lool. ñu invité Bécaye sunu papa Bécaye ñu ngi koy nuyu au passage gis nga sorté bi nga xam bi nga xamante ni Modou Lo def na ko barki démb 2STV wax li nga xamante ni moom la wax foofu mu mel ni metti na waa Pikine lool. xam nga instant ni kañe yi seen seen seen biir dafa fees. kañe yi kañe yi. ku nekk nga génn sa pax. di toog si média bi di ndellu di wax ñoom waruñu wax ñun ñoo war a wax ñun askan bi. ñoom lan lan. kaña yi laa wax ñu ngi génn seen pax fu ne di wax te ñoom heure bi du seen heure waruñu wax ñun ñoo war a wax. Modou Lo Modou li mu wax keroog 2STV bi ñu laaj ko ne ko Ama ak booy ñaar kan moo gën a neex a bëreel mu ne Ama moo gën a neex a bëreel. day maam ndax day maam. loolu émission boobu seetaanu ma ko mais dama toog Abdou Diouf woo ma téléphone ne ma Pikine ndax yaa ngi seetaan émission bi ma ne ko émission ban mu ne émission Modou mooy daw 2STV bi. ma ne ko Abdou Diouf yaa ngi may tooñ kooku aw ma jotom coupé barki sëñ Fall loolu laa ko wax laay Abdou Diouf. en tant que sa adversaire ngeen war a bëree ñaar doo ko seetaan. doo ma koy seetaan xool lu mu fa wax ay kilifa ku mel ni Abdou Bakhoum ku mel ni suñu papa Jules Baldé ku mel ni Pape Sarr suñu grand bu baax boobu amool lenn looy wax ngay toog dina ñi ay dof lañ xanaa xamul slogan ñoo leen gën a dof fuuf fii la jóge te ñun ragaluñ loolu ñu lay toog ne ñoo leen gën a dof fuuf gën leen wopp gën leen xotteeku. mais dafa mel moom ni mu ko waxee metti na leen. waaw daf ñuy metti ndaxte bu tiimee suñuy kilifa dina ñi ay dof leen kon moom respecté wuñu mm-hmm. mel ni naqari na Pikine ba ma gis mu génn def sorti boo xamante ni wax li ko naqari ci Modou Lo lan lan lan moo tax affaire bi meti Pikine. ndaxte yii bu amee sama téléphone dootul noppalu ko kar kar kar kar kar Pikine waxu ko Pikine waxu ba sànq la si mujj. barki sëñ Fallou ma ne dinaa wax mais looy wax day da ngay xam li ngay wax lan la mais Modou Lo dañ ko bëgg a wax fii ay champion fi dëkk fii ay noobu la fi yeew banlieue bi daf ñu jox cër ñu jox ko cër jox ñu cër lu mu bëggul dégg lay dégg awaloo faatuloo Modou Lo ngay wax lool yow waaye kii di ndeyloo asafar mais mais yaakaar ni combat Ama Modou dina am barki sëñ Fallou bu amee ngeen gis lu metti si Modou ndaxte lu ñu mësa wax lu metti lu ne pël bi dinañu ko fajal. mais est wax ji tam waxu ko pour déstabiliser leen. non mënul loolu ñun ay TSK lañ ñun ay caw sa xiir lañ ñun ku ñu dóor ak ñuy aar yet bi te yàgg yàgg ñun wax yow dinañ daje déggoo ma de mbëru askan yi la mbëru patriote yi la loolu ngeen woote buñ si tollee ngeen xam ne lépp dëgg la gatsa gatsa bi day daw force. te ñun dañuy ñëw jël si suñu moom si làmb ji naa la xamal la ne stade bi ñun ñoo ko moom. arène nationale bi arène nationale bi duñ ñu ko xañ ama daf fiy tool ngembam par force ñi xam nga la leen ñoom bañ. làmb ji taxaw ama mobiliser àdduna ñëpp a topp ko ñiy yor photo Sonko ñiy yor photo ama ñiy def foto Sonko fii photo ama loolu lañ doon bañ stade bi da doon fees Sonko photo Sonko. loolu ngeen doon barki sëñ Fall lu yéemal eh, ragal a féete day xañ a wërsëg fu nekk toog nga ne fii laa féete kon ñun fi ñu féete duñ ko duñ si daw duñ si taay loolu force la duñ raay raay ñu askan bi lañ fi nekkal peuple bi lañ fi nekkal fu ñu nekk ñi ngi fa ak lu doxo suñ réew kanam ñu war nañ déplacer sax esprit bi barki sëñ Fallou mais Pikine première génnu Ama Baldé mu war a wutale arène nationale loolu nan la war a mel solo lu ñuy doon waaja le neuf mhm. le 9 juillet. ñun ama amuñu luñ ko jàppale amuñu amuñu moyen buñ ko jàppale ama amuñu ñu suñ poste jox lenn rek lañ mënoon jaar muy leen organiser spécial journée Ama bale fii Pikine le 9 mooy lan slogan mooy lan du yàqu. du yàqu du yàqu. loolu fu ngeen ci toll. loolu ñu ngi siy dox démarchement Abdou Diouf ak ñeneen ak ñeneen mais stade bi la ñuy wax dañuy bind demande ku toll ni doomu Pikine ku tol nu Ama bale Assane Diouf mi ngi syndicat mais ñun foofu dafa waroon yomb si ñun mais ñi binduloo ay demande ay yóbbu ko maire beex maire beex kon mu mel ni affaire yi day amaat leneen lu si laxasu te ñun dañoo bëgg rek pour jàppale Ama bale mu am entrée lépp luñ si am ñu ñëw jox ko ko ndax ñun mu ñu tàllal suñu loxo di ñaan ñun ak ñun ay gor lañ ñu ba ba ñuy xëy dee duñ tàllal suñu loxo ne Ama ñu yoon ñaan lii wala lii non non ñun dañuy jéem a créer suñu programme gars yi ñëw def entrée dugg ama bëggal supporters yi lépp lu ñu si am ñu ñëw jébbal ko ko soxlawu ñu si dara. initiative bu rafet. non loolu lu garaaw loolu bu amoon nga gis la neuf Pikine dañ koy wàccee dóom àdduna ñëpp a koy wuusi maa ngi woo nag staff bi ngeen ñëw jàppale ñu ndax lii lañ si wéet ñoo leen jàppale leen si am na loo xam ne boo dox pour ama réussir pour ama yokk si kanam dañuy ñëw jàppale ndaw ñi ndax ndaw ñi ñi ngeen seen xalaat ñi ngeen seen xel dañuy xalaat ñun duñu ay mala dañuy xalaat. ñu mu ñu taxaw kenn dina ama la ñuy ketal wala ama la jàppale lii ñun dañ bëgg a tëggal suñu programme jëloo ko suñu bopp lépp luñ si am ñu ñëw nekk lii lañ si am ama ñëw bàqu spécial bëgg supporters yi feccex ñoom photo ñoom vidéo ñoom ñu loolu lañ si jublu na loolu àdduna ñëpp ñu ngi koy laaj fu ma génn le neuf bi la ñuy wax du yàqu amin waaye Pikine boo amoon tey looy wax waa Pikine rawatina ñi nga xamante ni ñooy topp am lan leen moo ñu gën a takk rek gën a takk dàll yi ñun ama muy metti muy neex ñu wax moom ba man bu nekk man boo amul woon aama làmb du ma si wax fissin duma si wax dërëm lu ma ko sax seetaan mais ama lañ xamul ñun luñ koy def nax ama lu ñu won naa la xamal leen de ama boo toogaloo moom journée ngay xam kuy ama bale buntu gàllam ku dugg da ngay génn ku génn de keneen ñëw ndax lan social yi muy def am ku ñëw am problème boo ko woowee mu ñëw defal loo ko si jekk ak te gën ñu bari six ans la toog bëriwul. loolu noonu du du fu mu koy fu mu fu jëlee dafa am ay ñu ne ci ginnaawam wala lan la. ama déggoo lu mu la wax fukki dërëmu Baye ñaar fukki Baye Fall yi moom laa yaakaar ama dafa am nit ñi ba pare kon moom. koor gi mu doon def social. ndog yi chaque jour ñii rey ginaar ñii di waaw waaw xam nga. beneen yoolu cant yi doomu aadama kon kooku dañ ko war a jàpp soutenir ko. di woo xam nga képp ku bëgg a jàppale Ama Baldé ñëwul nga jàppale ko bul xaar lu baax boo si def doo xaar. numéro bi gars yi joxe mi ngi dox. waaw loolu Ama sàkkuwu ko mais peuple bi ñoo ko sàkk peuple bi ñoo wañaan loxo Ama nekk lii force nag ñu koy nangul man ak Abo Abdou Diouf ñoo jënd piis bi jël ko lu bee sàkk dugal si piis bi nekk force téye ko ku la woo ko wax ak moom mais Ama sàkkuwul lii. ñu ñoo wañaar loxoom nekk lii force day am ndax daam ñun jot a dugal seen xaalis xamuñu fi ñu koy jaarale ñu ne ko kon force day wañaar loxoom dafa mu defal lu ñu bëgg ama sàqu ko de mais peuple bee ko na solo kàddu ah, kàddu yu mujj yi maa ngi bëgg ñëpp di bëgg abo xam nga ñuy jàpp sonn si ama ay ñoom Abdou Diouf Mbaye ay lay visé xam nga di mention spéciale mobile doomu Grand Yoff kooku non mobile 2 champion ngi noonu borom baax di gërëm suñ pap Malaw Seras di gërëm mafia bi TSK bi xam nga di gërëm ñëpp fàttewuma kenn ay ñoom Fallaye 2 waa Jospara bi ñu ngi leen di bëggee gis nañ seen taxawaay bari sëñ Fallou waaw Moustapha borom turki ñu ngi leen di bëggee Tafa Ba Thierno Nomba nag mention spéciale ndax Thierno Nomba day jàppale jeune Pikine di jàppale peuple Pikine yi te nekkul benn poste te si Macky Sall la nekk man dëgg rek moom ma ñor te dëgg laay wax kooku bu ñu jógoon pour taal këram man la ñuy ñëkk taal balaa ñuy taal këram ndax geste yi rafet yi ma gis muy def Pikine barki Sëñ Fall di bëggawaat Tafa Ba le jeune de Pikine di jàppale jeune Pikine yi xam nga lu jeune Pikine metti boo ñëwee si moom moom da ngay gérer ngeen ànd mu dox ko lépp kon ñoom dañ war a jàpp te am nekkuñu benn poste de te sàkkuñu benn pos ñu dëkk bi moo ñu ñor. ku defal suñ dëkk ba la ñuy jël di nuyu si bale suñu papa jow ñu ngi koy béggee ay ñoom Pokola Ama Balla maa ngi koy béggee mention spéciale di béggee mbëru Pikine yëpp ay Ndiaga Diop Ndiaga Basson Amouras xam nga maa leen di béggee Karbala si làmbam bi mu jógee yal na ko yàlla may ndam ay ñoom Abbas ay ñoom Bouré maa leen di béggee sama mafia ñu may àndal ay ñoom Ameda ñoom Amath xam nga Bouba France ma tombo accino lore xam nga maa ngi leen di bëggee quoi sama xol moo fees di bëggee buuba gamien waa lele maa ngi leen di bëggee Pikine maa ngi bëggee ñëpp di bëggee Mbaye Gueye àllu cus di bëggee nag sama jabar soxna si moo may defaral mango du ma ko tegal si palaat mais cap di téen di bëggee sama yaay maam Fatou Niang kooku dafa sonn suñu ñi koy ñaanal xam nga mu nekk fi ba mu fekkee suñu yëri mais avance mi ngi taxawaalu ba tey avance Pokola jot na avance mais ba léegi daa mel amagul. mais Pokola jotagul avance. dama dégg ci yooyu bay ñu ne ma jot na avance. mais Pokola bu wàññiwul lii dootul bëre bu wàññiwul dóor yu métti yi dootul bëre de Pokola man Pikine Dakar maa ne wàññi sa dóor yu métti xam nañ ni yaa leen gën a dof fuuf mais wàññi pour gars yi jël la. di ñaanal tamit Ada Fass fee nekk yal na ko fa yàlla génnee Ada Fass fu mu nekk yal na ko fa yàlla génnee ndaxte jullit bu nekk ñaanoo yàlla sa mbokk nekk fee di bëgg paata bale fu mu nekk yal na ko fa yàlla génne ay ñoom Omaro Pape Soulan xam nga képp ku fa nekk rek yal na def suñu borom génne te lu fa dugal nga bañ ko fa dugaat waaw maa ngi ziar Pikine ak lu làmb Pape Sarr maa ngi ke bëggee bu baax mais Pape Sarr coow jubul baa coow bi loolu naa ko gérer kon Pikine a ngi nii dina gérer lépp macha allah jaa ngeen jëf gars yi gis ngeen tey lii la leen indiloon Pikine Dakar TV bi bi ñëw de waaw Dakar TV dañ ciy ñëw Pikine Dakar TV ñuy wax gars yi ngeen daw abonné nee naa leen ibbi na site boo xam ni macha allah lu neex lépp falay ne Pikine Dakar TV daw leen abonné te xam ni mooy loolu Pikine Dakar TV. Pikine Dakar TV rek la ñuy topp. topp ñu leneen léegi gis ngay def ay vidéo yi neex di wër Pikine ko ñi nga xamante ni dafa am ay mbalit wala salte nga ci def ay vidéo mu nekk lu nice initiative boobu. waaw loolu dafa loolu man xam nga la man Pikine laa bëgg muy avancer ca kaw. Pikine mooy dëkk boo xam dafa neex a defal fii pour ñu defal ko kon un bon mais pour ñu defal ko tamit pour dëkk ñu ñu dëkk si dëkk bi defar dëkk bi ba pare moo tax bu ñuy jàppale mu gën a neex a jàppale mais ñii bi ñuy defar ñii di ñëw di sotti mbalit ñii di lii loolu man ànduma si man Pikine rek ma ñor bu ñu defaree Pikine rek yaa salaam ku si mel ni Thierno Ndong Ba xoolal alayaam yëpp la koy defar xoolal maire tim kii Amadou Diarra ba ma defee vidéo si woote arène nationale bi dafa ñëw indi ay moyens defar ko kon kooku mention spéciale man nekkuma fenn man ku defar suñu dëkk ak ku yor suñu dëkk ñooñu laay nekkal ak jeunesse bi topp Pikine rek ma ñor dara ñoruma macha allah dëkk Pikine moo neex mbégte partagé kontaan continuer eh lii dafa neex dëkk Pikine moo neex mbégte partagé kontaan continuer ayja macha allah mbokk yi yaakaar naa ne loolu am na solo ñiy béggee ñëpp di siyaar ñëpp di nuyu Boy Ngaay borom euh, Kër Mbay Fall borom Dallu Ngaay ñu ngi lay béggee di la siyaar di la wax ña ngi fay ñëw incha allah dafa yow émission boo xamante ni bu toj lay doon di béggewaat ñëpp di siyaaraat ñëpp di béggee monsieur le maire Modou Gueye maire Djiddah Thiaroye Kaw ñu ngi koy bégg rek siyaar Omar Sané directeur maa ngi béggee di la siyaar borom Medina Gounass borom Géejawaay maa ngi lay béggee di la siyaar di la kontaane Omar Sow responsable politique nekk fële ci yëmbal siddu moom it ñu ngi koy béggee di ko siyaar di béggee bu baax a baax Koumba Ndiaye gëm sa bopp gëm sa bopp maa ngi lay nuyu di la borom Kër Massar borom amokat borom gaay maa ngi lay bëggee di la siyaar di la jox sa wàccuwaay di jox gaay dig daje beneen yoon ak beneen champion incha allah.